am yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan suñu Buzz TV ñu dikkati ci émission boobu nga xamante ni mooy la 10 minutes Buzz ñu siy waxtaane li nga xamante ni moo xew fii ci Sénégal ñu siy ki nga xamante ni mooy sëriñ Moustapha ñëpp ràññee nañ ko sëñ Moustapha Dieng bu RFM sëñ Moustapha bu Rafahi TV sëñ Moustapha bi nga xamante ni yéen ñëpp yéen a ngi koy faral di bàyyi xel ci émission yooyu muy def ci RFM ak Rafa TV sëñ Moustapha ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare ñu jox nga nuyoo ñu tàmbali suñu émission les 10 minutes de buzz. jërëjëf euh, sëriñ Mahmadane maa ngi lay ziare di ziare bu baax a baax euh, sa ay téléspectateurs yi lay bàyyi xel sunu buzz maa ngi leen di nuyu di leen bëggee di am mbégte ak kontaante ci toog fii tey ngir fas yéene waxtaane lenn ci buzz yi nga xamante ne xëy na jekkuñ ko sax waaye dañuy wax rek sunu xalaat. ci lépp loo xamante ne ni ngi koy wax rek yàlla nañ ci dajeeg taw yox suñu borom di nuyu ñëpp di ziare ñëpp waaye rek di jiital sama ay nuyoo ci sama ay kilifa ku ci mel ne Pape Balla di euh, chef de station bu RFM Mbacké maa ngi koy nuyu di ko ziare di nuyu tamit euh, ku ci mel ne Mourtada Rafaïl ak mboolem ñi nga xamante ne rek sama ay euh, kilifa lañ rawatina sama sëriñ sëriñ Abdou Khadim moom sëñ Cheikh moom sëriñ Saliou. nuyoo bi matale na macha allah am na solo lool ñu tàmbalee li nga xamante ni mooy le bii di ñëw waa ànd sàmm jikko yi dañoo war a def benn doxu ñaxtu boo xamante ni boroom ñaari tur yi kat lañ bëgg mu dakk fii ci si réewum Sénégal. bëggoon nañ nga dugg foofu wax ñu sa xalaat ak boroom ñaari turi lan la mën a yàq ci am réew sëñ Moustapha. d' accord maa ngi sant yàlla bu baax a baax ci bi nga ma laajee question bi ndax question la boo xamante ne question jihad la jihad lañ koy mën a jàppee parce que gis lu ñaaw nga dindi ko dafa fa dellu ci xadis bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ko waxoon muy man raa minkum munkar far yughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi waaye nag doyu ca yemu ca dafa wax ne fa saalika adaaful iman mooy que ne képp ku gis aw ñaawteef ci yéen jullit ñi ngeen gis ne lii aw ñaawteef la na ngeen ko soppi ci seen loxo bu ngeen ko mënee dindi ci loxo ngeen dindi ko su ngeen ko mën mënta dindi ci loxo muy loo xamante ne ëpp na leen doole ngeen dénoncé ko ci seen làmmiñ ba nit ñi ñi ko war a yëg yëg ko waaye su fekkee ne ragal nga dénoncé ndax boo dénoncé am lu ci juddoo loo xamante ne xëy na mën naa doon leneen waaye nag nga naqarlu ko ci sa kon jàpp naa ne jëf jooju dañ ko yóbbu ci xaddis bu sell boobu nga xamante ne sallallahu alayhi wasallam wax na ko mooy dénoncé ko ci làmmiñ ndax xam nañ ne homosexualité muy mbirum góor jigéen mbir la moo xamante ne même bu ko diine dàq dàqul woon même bu ko diine waxul woon dara sax xel doomu aadama mu sell daf ko nanguut te bokk na ci li nga xamante ne day yàq aw askan ndax kenn ku ne xam ne ne si hmm. askanu Seydina Lut alayhi salaatu wasalaam bañ hmm. nekkee ci mbon googu noonu xuusoon ci yàlla ñu aaye leen ñu bañ gis ngeen ni yàlla def ak ñoom mooy alag leen ba alagaale sax ñi nga xamante ne xëy na yàq gu wow dana lakaale gu so gu tooy kon nag yàlla mi ko defoon moo aaye woon ndax yàlla damay wax ne yàlla dafa am fulla yàlla ba fi yonent bi sa alayhi wasallam ak léegi waxut hmm. yàlla yàlla suñu borom hmm. bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ak léegi waxatut dafa daal di rek toog te moom ñun ñëpp gëm nañ ni yàlla moom ku am la ku existé la hmm. te mi ñu ñuy gis lu ñuy def ñu koy def te waxut loolu nag bu fekkee da gàtt xel da ngay jàpp ne yàlla nit la ko wala boo ñu baal ba ci baat bi jëmm la joo xamante ne wala boo mbir la moo xamante ne ndax yàlla kenn xamul la mu doon xëy na ak existence sax mën nga ko ñàkk gëm waaye bu fekkee gëm nga ne yàlla am na gëm ne lu ma lu mën di xew fekke ne ko kon da ngaa war a gëm ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu di mbirum góor jigéen nanguwuñ ko te kenn du ko mas a nangu te xëy na bu fekkee ne yàlla dogal na nga nekk ngay doomu aadama am ay ay am ak wér am ak man am ak jot soo mënee dem assister ji baax na nga dem fekk ji ko mm-hmm, mm-hmm. su fekkee tamit mënoo ko boo manee bul bul xeeb sax sunu bës dugal ko mm-hmm. nga def ca benn zem boo semee mhm. sax jàppal ne yow kon def nga acte boo xamante ne jàpp nga ci xeex bi mhm. boo demee ba xam ne xëy na mënoo amoo portable boo mhm. ko ah, ko sa xol ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla boole ñu jubal ñun ñëpp ndax xëy na yàlla mooy gindi ki ko neex yàlla mënu laa na yàlla defal leen tawfeex euh, am na ñuy wax tamit naan waa ànd sàmm jikko yi dañuy dañuy politique yow est-ce que gisee nga noonu ah, ndax neen dañoo dem ba ba élection yi ñëw rek. ñu ñu dugal ko ci biir. yow da ànd ak ñooñu wala da war a jël fi nga xamante ni moom la yàlla wax ni loolu baaxul. waaw xam nga problème mooy ñoom même bu ñu koy politique sax baax na. baax bu ñuy politique baax na parce que ma xam la la li ñu dénoncé ñoom. ne moom la ñuy xeex ndax Macky Sall sax bu ma jumul wax na ko ci bi mu génnee daane xamuñu politique la xamuñu. waaw xam nga ku sa gimiñ dina sa li ñu wax naan borom gimiñ gi naaj ci jàmm te ku sa wujj di sëlam kenn ku nekk ci ñun ab sàmm la te sàmm bu nekk yàlla daf na la laaj lañ la doon sàmmloo noo ko sàmmee. Mm-hmm. yowmal xiyaam danañ ñëw one by one li anglais yi wax naan one by one ci kanam suñu borom. Mm-hmm. kenn ku ci nekk suñu borom laaj la ne la sa responsable nangam naka nga ko yore woon. Mm-hmm. maa ngi dégg président Sonko fan yee muy def benn discours ci jamono di waxaat responsable bi nekk euh, ci ci ci ci li jëm ci wàllum fal yu ma noonu. waaye loolu la ci intéressé mooy ñu kenn ku nekk yow mii yore seen buzz mhm. wala seen buzz mhm, sunu buzz waaw sunu buzz mhm. yow mal xiyaam yàlla dana laaj ne la ba nga amee organe de presse ba tu doon sunu buzz sa morom yu bëri bëgg ko ma xañ leen ko ma may la ko yow loo ci def su fekkee defoo ci woon lu neex suñu borom nag bu boobaa moom mooy àtte na ko sopp waaye fekkee ne def nga ca la neex suñu borom bu boobaa tamit xel mu dal mën na caa am kon ñu jàpp ne lu waay mën a def wolof day wax ne dereti bopp Mm-hmm. lu mooy mbagum borom mm-hmm. te lu waay rendi sa loxo na yaay macha allah rafet na lool xam naa ne sax émission bi moo xawut a gudd lool mm-hmm. dañuy duggaat ci beneen point point bi ñuy dugg mooy Sénégal coupe d'Afrique gis nañ ñëpp coow li bari na lool moom ñëpp gis nañ ko mais avant coupe bi di ñëw dafa am ay sëriñ yoo xam ne dañoo taxawoon di wax naan fii kat coupe du fi ñëw maa def li tax coupe du fi ñëw affaire yooyu sëriñ yooyu noonu la lan la ngay jàngate loolu sëriñ Moustapha Dieng waaw tout d'abord ki wax kan la xamuñu Sénégal dañuy wax ne sëriñ. Hmm. nañ ko baatu sëriñ ba pare. Hmm. sëriñ mooy kilifa. Hmm. su dee suñu mbokk pulaar yi cerno la ñuy wax. cerno waaw. waaye am na beneen baat bu ñuy wax ne sax ne maaraam yooyu yëpp xeetu kilifa lay doon waaye. ki wax sëriñ bi wax mooy kan mooy wax ji. xam nga dafa am loo xamante ne ay xaybiyaat la yàllaa ko moom moo koy jagleel. ku ko wax nga dëgg. ki wax li mu wax. ba sukkandiku ci ba wax ko moom la engagé waaye nag ñun ñi gëm nañ xam li ñuy gëm. waay gis nga dafa am loo xamante ne xëy na ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal am na nu muy doxee ndax nañ bàyyi xel ne ñaqu comme ni ma ko mën ñaqu ñaqu ñaqu kii ni ko mën a ci wolof ba gën a woyof. Hmm. ñaqu hmm. mooy siin cere nandite. Hmm. ñaqu kon. mooy siin cere nandite. gis nga ñooñu noonu du du wax ci internet bi naan dana nangam dana am ak nangam du am. waaw ñun ñëpp ñi ci ëpp xamuñu ca dara. lañ bëgg mooy lancé nañ benn per rek mooy benn xeer sànni nañ benn xeer. <laughs> pour ñu mën a ñëw mën ñoo ñàkk jam suñ jamee mu tombé am na dof yoo xamante ne dañoo gëmuñ njabara gëmuñ njabara gëmuñ njabara ba ñu ko gisee sondeel bu takk ab ab sondeel bu sol garab bu toog sax <laughs> gëm ko ñooñu nag la xëcc ñoom ñi nga xam ne dañoo gëm ak njabar ñoom la ñuy xëcc ngir ak gëmukaay la si ñoom. Hmm. waaye yow mi gëm yàlla gëm yonent bi salaay salaam xam ne lu yàlla lu am yàlla. Hmm. da ngay da ngay daal dellu fa sa borom rek daal di toog xam lu am nga xam ne yàlla. Hmm. te lii dafa dafa aw yoon. du ma tudd mais am na fi soxna su siiw soo xamante ne yàgg na koo def ñu naan naan mat bu làmb amee mu ne nangam dana nañ waaw su su dara amee mu ne dana am. léegi nag li li problème mooy bu sàmmee xeer moom mu dem su ko su fekkee ne xeer yu jam na moo xam ne xeer yu jam na su xeer yu jëmut ah Sénégal moom seen coow mbambu dafa rey weer loolu la ñuy wax su waxul dëgg ñu ne waxul dëgg te léegi nag lu mel ne euh, réseaux sociaux yi ni mu yombee léegi daf ci joué rôle bu am solo. Hmm. da ci rôle bu rëy la ciy joué. Hmm. ndax réseaux sociaux yi kenn ku ci nekk yaa nga yore sa organe de presse sa xuruq. man mii maa ngi sama organe de presse muy sama portable bii. Mhm. nga xamante ne bu ma gisee kenn koo xamante ne ci mel noonu la ma mu toog ci benn coin ma daal di koy caméra mu wax la muy wax ñu jàllale ko mu wër àdduna. Mhm. waaw Sénégal moom bës dafee yomb. li am solo mooy kenn nit ki. Mhm. li am moom ba àdduna sosoo ba léegi mi ngi am. ndax lislaam dafay fekk njabar. waaye nag jullit bi moo war a gëm boppam. waaw nañ gëm suñu bopp te xam ne ay xëy bi yaat yàlla daf ko am am na ñu mu ko jagleel waaye nag kam ko jagleel est-ce que yow ba ki ki lay wax mooy kan. Sénégal dana am lii suba dana am lii suba dana am lii. yooyu hmm. yëpp ñu ci bëri ay planification la ñuy def yoo xam dañuy planifier dañuy planifier seenu dund. Hmm. ngir tourner xelu ñi nga xamante ne ñoom gëm nañ njabar bu ñu waxee dara ñu dem wuti ca waaye nañ bàyyi xel daal. li am suba yàlla rek moo xam. yàlla moo ko moo xam. xam naa émission bi daa gudd waaye. yàlla moo xam leer na. Hmm. dañuy jëlaat beneen point. point mooy ku ne xam na ni Casamance. ci Sénégal la bokk Casamance suñuy nawle la te jàpp nañ fa sept personnes yoo xam sax ñi ngi ñi ngi dégg ci xibaar yi mujj dégg ñu ni war nañ leen a bàyyi mm. altine mais tam bàyyeegun leen mm. la ban message ngay jox ku mel ni euh, Salif Sadio mi nga xamante ne daal day mm. kidnappé ay ay ay ñi nga xamante ne ay sénégalais lañ di leen def lu ko neex ñii mu leen di ray ndax jot na faa ray ay quelques personnes jàpp sept personnes. loolu nan nga koy gisee sëñ Moustapha. waa xam nga euh, fippu ci am réew mooy lu dañuy ñaan yàlla mi nga xamante ne moom moo dem ba ca soratu buruj mu ne mhm. faalum lima yurid yàlla bëgg lay def mhm. bu sooboon yàlla tey ci guddi gi balaa jant bee balaa balaa jant bee fenk mhm. lépp sedd lépp nekk ci jàmm waaw moom la ñuy jiitu ñaan ko moom suñu borom ne ko nañu may jàmm moom mi nga xamante ne moo am jàmm te lu mu jàmmal mu jàmm yàlla na continuer di may Sénégal jàmm ju dal gi mu am di di wax rek jëmee ci képp koo xamante ne xëy na way fipp nga mhm. bu ma la xamee ak bu ma xamul xëy na sax man xawma ci kenn waaye nag li may mhm. ñaan mooy mhm. nañ bàyyi xel ne lu waaye def ko defaat te ku dee lay ber ndeysaan ndeysaan ndeysaan bàmmee mm, ci mi ngi xaar suñu jëm yi te dana ci jot àdduna bis boo deewee ba malaaka yi séq la ba laaj la question yi ba pare nag la cay amaat ginnaaw bi réccoo fay am wala ngay ndam rek mm. kon nañ bàyyi xel ni daal nañ bàyyi xel doomu aadama lu mën a xëccoo ci kaw suuf na bàyyi xel ne doomu aadamaa gën a foor lépp wala xadd karam naa bani aadama la yàlla wax yàlla moo ne bi ma bind bari na waaye doomu aadamaa moo ca gënal doomu aadamaa mooy ki nga xamante ne moom moo ca gën a kawe kon nag gouvernement bi toog ak fipp yi ñu toog ci benn table waxtaan ndax première guerre première guerre mondiale 14 mhm. 18 mhm. ci benn taabal la jeexee waxtaan 39 hmm. 45 deuxième guerre mondiale. am na solo ci taabal lañ toog waxtaan ba lépp di ko ci jàmm. Hmm. kon nag fi way fipp yi toog ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ñu waxtaane ko te ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi wala askan wi bañ di fay nen.